tariqa bii tariqa bii di tariqa tijaan di tariqa tijaan ku bëgg miin cheikh ku bëgg miin cheikh doo ko am ci jël ay valise u di joxe de doo ko am ci jël ay valise u haadiya di joxe déedéet déedéet boo bëggee miin cheikh sëriñ ba malaan ba mu toog sëriñ ba bu wér dee bu wér dee wér dël bu jullee bu jullee jullil bu azaka génneel bu demee màkk demal yawit toogal di jàng salaatul fatiha sopp cheikh tijaani di wasifa di laazim di xadara nii soppe soppee Cheikh. nii la ñuy soppee Cheikh Tidiane Seye. soo ko deful nag. soo ko deful nag dem jël daayira. dem jël daayira def ko folklore. def ko folklore di def lu la neex. di def lu la neex defe ni looloo taxoon. defe ni looloo taxoon mag ñi sañ ci daayira. mag ñi sañ ci daayira ndax nga sa bopp. ndax nga sa bopp. bu la neexee joxe hadiya bu la neexee joxe hadiya waaye da nga baax rek waaye da nga baax rek da nga bëgg yiw rek da nga bëgg yiw rek waaye da nga defe ni boo joxewul hadiya da ngay aw boo joxewul hadiya da ngay aw déedéet déedéet wérdal salaatul fatiha wérdal salaatul fatiha defal ka hadiya nitu yàlla yi defal ka hadiya nitu yàlla moo leen gënal moo leen gënal tariqa bii ma ni amul business amul business amul xaalis amul leneen xam nga lu mu am leer ku mere nag ku mere na Seydou Mohamed El Cheikh Seydou Mohamed El Cheikh ndax dafa yàq sa business ndax dafa yàq sa business loolu sama yoon nekk ci dëgg rek laa wax allahu huwal haq wal haq huwallah boo gisee ma wax ko boo gisee mu wax benn mbokk dafa ma wax ni dafa am benn oustaz mu ñu neen daf la mere ndax da nga yàq business am dafa daan jaay téere jaratul jarat téere ya jaratul ma ni ko na ñëw ma ñaanal ka yàlla téereem ya jar waaye yàquma business am dëgg laa wax taalibe cheikh taalibe cheikh cheikh rek cheikh rek leer rek leer rek xaqiqa rek xaqiqa rek la Maodo santaane la Maodo santaane cheikh rek yonent bi rek yàlla rek cheikh alhaaji Umar cheikh rek yonent bi rek yàlla rek Baye Niass cheikh rek yonent bi rek yàlla rek Serigne Babacar Sy kazalika Serigne Abbas Sall kazalika man mii kazalika cheikh rek yonent bi rek yàlla rek ku ci gis sa bopp dem àjjana ku gisul ci loolu sa bopp nag ñun mënuñu si dara pour bañ a guddee daal. pour bañ guddee daal. nañu def suñu ngànnaay. nañu def suñu ngànnaay. jërëjëf Cheikh Tidiane jërëjëf Cheikh Tidiane yow mi leeral àdduna. yow mi leeral àdduna. leeral réew mi. leeral réew mi leeral barza. leeral